ma جفن المسهد طائر حذر متى يرمي الوقوع يسردي moom lay wax ne falakam aji bari labisto hoddoo naa ko addahra diiru jamono min suqaqil mala ci yaa ñoom ay morso kal xirqi mel ni sang yubla dana mu fil malaay ci malaani cëw nga wayarta diita dana làmbaayu mu ne mm. mm-hmm. bari na xeete àll yu ma sikk ci mm-hmm. diit bu gàtt mm-hmm. hendu fii fanaani fii xëyee fii gontee fële yawman bi misra wa yawman bil iraqi wa yawman bil hijazi wa yawman bil humayfa'i <coughs> loolu bari na moo ko def xam nga lu may niru ci foofu dafa mel ni ku bëri la ko tabe kooku xam ne heure bu ne mu ngi xottee ko maye yure yure bu mu daloo rek bala yàgg mu futti ko maye beneen xàll yi ma daan fitt noonu rek lay niru ci man ndax xàll di la sumb bu démb bi démb de ci gàjji bu rëy laa doon dox tey nag ci ndend kam aji bëri labis soo doonaa ko addahra diiru jamono mm-hmm. min suqatil malaa ci xàll ya mel ni ay morso mm-hmm. bari na ay xeeti xàll yu ma fit mm-hmm. mel ni ay coupon yu may solo ka summi kal xirqi mel ni tàng yib laa dana mu rappal fil mulaayi ci malaanu ciw nga wayarta di te dana lambayu mel ni koo xam ne heure bu ne mu ngi daloo ko summi rek ndax fu ma àgg am fu ma romb xeer wasuraadiqi hmm, te suma mbaar suma pavillon ufqu samaayi goxab hasamaan la hmm. isaa saja bu dalee hmm. araha dana sàmm kawaakibaha biddiwi hasamaan bi jafni musahadin ci mbatam bëtam kuñu fogloo yàgg naa fanaan biti itam dox ba fanaanal jot rek ma fanaan Mm-hmm. xam ne dara du ma tiim mm-hmm. lu mooy rek asamaan si mm-hmm. su ko defee biddiw yi may leen xool du ma mën a nelaw dafa naa ne xoole jano biddiw yi mel ni kuy sàmm biddiw waran wasuraade xiite sama mbaar sama tobiyoŋ ufqu samayi goxu asamaan la isa sa jaabu dalee te laa asamaan si lëndëm gim lëndëm ne taras moom rek mooy li tiim moom rek mooy li may nëbbu xarxa dana sàmm kawaakibaha biddiwi asamaan bi jam ni musahadin ci mbatam bëtam ku ñu foogloo fii marjeen ci tëdduwaay boo xam ne axsaahu dana ko dikkal xayra mu dammatin bimoom duma lu ñu nooyal muy tëdduwaay boo xam ne xanaa dox ba tëdd fekk la fa laa fa tëddee waaye benn préparé buy tax mu neex a tëdd jiitu sama tëdd ba amut bale lenn amut rattaxal lenn amut tox amut toxal lenn wa diraama nittil xabri xasa bug doj xasa bul doj fii ci ma wasadi mooy sama ngaganaay ne su ma bëgg sama bopp yëkkate ko ba ma mën nelaw doj la cay ron wa ka annama jëf nii daanaka suma mbatam bët al musahadu ma de mu ñu fogloo tairun njanaaw la xadirun lu daaji ragal lu xam ne ma tayirum waxtu wum sakko al wuqoona dal yu sarat def na ko dak kon ñu jàng lool su ko defee damay fanaan du ma mën a nelaw ndax coono dox bi ma xendoo ak gëje nelaw gi su ma jëm ma nelaw torop du ma mën a nelaw fii ni mu doxatee tëddukaay ak ni ma fi ragalee tax duma nelaw ma toll ci xaama na may def ba nelaw xaama na may def ba ñàkk a nelaw muy niru rab boobu nga xam ne kat bi dafoo dàqe comme cokeer li ñàkkukat bi dàqe muy dem de dem de dem ba mënatul dem su ne dal rek la man te bu na dal rek ñu ko xalaat ko dafay toll ci xamut na muy def ba dal xamul na mooy def itam ba wéy foofu nag bu ko rombee rek daanu ci la jëm mooy itam daan naa toll ci xaal yoo xam ne su ma ko doon romb rek nekk sama bakkan selu ngu baax a baax moo tax ne wakka an na maa jëf nii daanaka sama mbatam bët almusaadu ma de muñ fogloo tayirun njanaaw la xadirun lu daa ji ragal lu xam ne ma tayirun waxtuum sax ko alwu xon dal rek yu sarat def na ko dàq فكأنما حسب الدجى فالخاقت أرخت عليه مخالب المتصيدي ci guddig ñàkkaa nelawam googu ak lëndëm gi ko wër ak nim ragalee ci lëndëm gi te gisul lu ko may ci lay wéy mu ne ba ka annama xasiba daanaka jortu na moom suma mbatam bët mi xaddu ja lëndëm gi mhm. sabxa am mu di jaageej mhm. xat ar xat boobu yor na mhm. alayhi ci moom maxaalibal mutasayidi wehi aji rëbb lëndëm gi nim ko wëree dafay ni du jaageej bu ko dëpp mbaggam ba teg koy wexam pour xotte suba mbaggam jaageej bi mu ragal rek lay gis gisul lu ko may moom lëndëm gi mu ragal rek lay gis wa kaan na maa xasiba daanaka jortu na moom suma bët bi mbatam bët mi. Mm-hmm. addu jàllandam gi. Mm-hmm. fat xaa mu di jaageej. Mm-hmm. xadar xat bu weer naa lay ci moom. ma xaalibal ma tasa yu di wex wéy aji rabbu. di tegu. wa kamis ta kayitu. wala wa kamis tu kiitu. xariba daarin laysa lii. min obwadin gayri daxilil milsadi wa kamista kaytu bari na bu ma tawatee wala wa kamistu kiitu bari na bu tawat loo seema taxari ba tarin juróom balaa ji tumaranke ci kër yàgg naa xame tawat te nekk ci tumaranke laysa lii ñaa lut ma min obwadin yenn wuy set kenn ku ma naan nga def maa ku may jéem a dimbale ci dara loolu xamam xëyri baxili lu may tàngoor wu si al min sadi way nampal kon ci sama xol su ma yëgee gan daal gan daal xanaa métti du war a yeese la wala yàgg naa koy def waa nekk ci tumaranke tawat te du ma dégg sax na nga def waxuma la kenn foo mën a kenn xalaat dimbale ma ci ndox mhm. su ma gisee daal gan mhm. daal xanaa métti lu bees a rek mhm. soo tamit te kayit bëri na ma tawatee wari ba daren bi doon maraaji tumaranke ci kër laysa li ñaalut ma min awwadin yenn wuy fekk wari daxiil lu muy tàngoor bi daal di tabbiti al mil tëddi way nampal kon ci sama xol su wala rubba laylin naabixiyin ruttuhu jamalan li raxli masma azza wala hudi wasaqat alayya dujaahu astatal hawa wasaqat fuaadi kasa wajjin midadi rujitag wata sada fi il umum wa ala al hasa xanaqan fa bittulaa bi laylati an qadilal zaynab wala rubba laynin bari na guddi naabixiyin gay ko jug naabixa ruttuhoo tàggat naa ko jamalan muy gilem li rax li ñaan sama laxas masuma azza gilem googu fañu hut wala hudiya te màngee suuko naabixatu sugyaani wuykat bu siiw la dafa am buur bu mu ko abu qabuus xam nga jaar seen diggante buur ba diggu ko muy woy na di jëmale ci buur boobu di ko tagg ak di ngant loo ka lay ci biir ngant lu muy nag dafay melal guddi guddi ga mu yëgee ne buur ko diggu nam jaaxlee ak nam tëlee woon a nelaw mu ne fa bittu ka anni saawarat ni da'ilatun min ar-ratshi fi anyabiha summu naaqi'u tanaadaraha ar-raaquuna min suu'i summiha li xali nisaa'i fi yadayhi qawaaqi'u وعلى أدنى الرائد يسهد في ليل التمام سليمها لحال النساء في يديه قواقع mais dama mel ni kooku naan a jànkuwanteeg jaan ji bon jooju hmm. xam ne jaan jaa ngi mer bay sànni dangatam hmm. muy jànkuwanteeg jamono ji jaan jooju pour bu ko jaan mat hmm. xam nga du talam nelaw nekk jaan joo xam ne kum laal duñ nangu mu nelaw ci guddi googu xam nga dangat su muy gën a yebee nit bu dalee loolu moo tax nit bu laaloo ñi ko sant ne mën na daw buy daw yëngatu boobu day fekk yëgal dangat ji du gaaw léegi dafa am jaan yu bon yoo xam ne seen dangat dafay làpp mën nañ ko yóbbu ca luggkat ba mu lugg ba jàpp ne wàcc na fekk dafa làpp bu borom nelawee rek mu géej mooy jaan joo xam ne ragal làpp dangatam tax na bu ko nit laaloo guddi googu duñ bëgg mu nelaw dañ koy boole yi koy tànqal ba du mën a nelaw gan jooju ku fanaana léewtoo ak moom nelaw man nag bi ma déggee ni nga moo sama guddi noonu la ni mel la lay ñàkk a tala nelawam gi moo tax soo guddi goo xajul nelaw rek ñaan lay la naa bi xëyya mu wala rubba lay leen na guddi naabixi yin gay ko jug naabixa ruttuhoo tàggat naa ko jamalan muy gëlëm li rax lii ñu ànd sama laxas. bëri na guddi goo xam ne comme guddi naa basala ci man. comme sama gëlëm la. muy gëlëm goo xam ne masuma wala xuddi ya te nangeesu. wasa xat dajale na àlla yee ci man. du jaawu lëndami guddi gi. astatal hawa wuy tàggaloo yi cofeel. xam nga bëccëg moo gën a nekk waxtu niisu. ndax yi ngay janool ak yi ngay dégg ak yi ngay jànkuwanteel hmm. dafay bëri lum lay fàtteloo ci hmm. la jaaxal hmm. soo demee ba mu guddi nag dajee toog dara déggatoo benn yëngatu jéggatoo lenn la nga doon jànkuwanteel ci bëccëg lépp jeex na dafay waral la nga fàtte woon yëpp jóg si ci sa xel jaaxle gi tat lool moo tax nag xeeti jaaxle ya tasaaroo woon ci bëccëg hmm. guddi gi dajaleel na ma ko wal layli wa ma wasaqa hmm. wasaqat dajale na te hmm. layli wa ma wasaq xale yee ci man du jaaw lëndëm yi guddi gi aspatal hawa wuy tàggaloo yi cofel wasaqat te ñu nandal ñoom guddi yooyu amaa lëndëm yi guddi gi saqa ànd waaw naat bi faadi sama xol hmm. ka sa wajdin xasam njàqare mais hmm. da din ngay jàmmale akoon hmm. wata sadat gaynde gaynde mu la ci guddi googu alhumumu njàqare yi xala saa ci samay baljet xana xan ngir ber ko bittu ma fanaan laa ngir yooyu bileela te an xadin ci guddi siñal mel ni daal la ma doon niisu ci bëccëg jaaxle yi dañ ma ko mere bi guddi jotee ñu song ma cong lu xiir ba tax guddi ga comme guddi signal la ci man ndax signal du nelaw guddi xëy na ko waxtaan sarat gaynde gaynde na la ci guddi googu alum moomu njaqare yi alal ci samay balde xanaa xam ngir nar te dëkk ma fanaan laa ngir njaqare yooyu belay la te an xadim ci guddi signal mm-hmm. am wala bisu min saaji تاجا رفعت منه فرائد لؤلؤ بسبرجد li tegu wal badru fi ufqi samaa'i kaannahu malikun min az-zuhri daraari fi nadi ndax du loolu wa tara surayya hawla hawlahu wa kaannaha jamrun jam'un li amrin fin asirati muntadi wa kaannama aljawsaw iqdun fussilat minhu faraidu lu'lu'in bisumurrudi waaw hatta bada saaru sabahi kaannahu waxtul masiri bi farin xawdin muntadi ñu jàng lool dafay wax guddi yim fanaanoo mu ne wala bistu ma hoddoo min saa ji ci aji dali guddi googu. saa jan mant. rusiat boobu doron kaalees na. min hu ci moom faraidu lulu in peri lulu. bi sumurudin ci sumurud. mu ne buñ seetee lëndëm gi nim ma wëree. ak asamaan si nim ma tiimee. nga gis bulaab asamaan si. ak weexaayu biddiw yi. ak ñuulaayu lëndëm gi temane ci biir mm-hmm. dama mel ni ku sol benn mant mm-hmm. bu xam ne dañ koo xoobee sabar jët mm-hmm. sabar jët dafa niroog gulaab xasamaan defal ko nag ay peri luulu luulu dafay weex niroog biddiw yi buñ seetee lëndëm ak guddi gi ak gulaab xasamaan si ak weexaayu biddiw yi te ma nekk seen diggante loolu rek lay niru dama mel ni kuñ solal benn mant boo xam ne dañ ko xoobee sumu rut mm-hmm. te defal ko itam ay tëri loolu mm-hmm. wala bis too doona min saa ji ci aji dali guddi gi mooy lëndamam gine tara mm-hmm. ci la sol saa saajan benn mant ci la sol aka mbubu mujot rusiat moom doronkalees na minu ci moom faraidu loolu in ay tëri loolu bi sabar jadin ci sabar jat mooy saaj boo xam ne ñu ngi ko defal tëri loolu defal ko itam sabar jat wal badru weer wi fi ufuqi sama ci goxu asamaan mm. kaan ne woo daanaka moom mm. malikun buur la mina zuhri bokk ci biddiw yu da way rafet mm. ak daraari yu da way leer fii na din cim pénc mu nga xool weer wi te lu baax a ci kaw nim ràññee ko ci biir biddiw yi li muy nidu hmm. mooy ak a buur hmm. bu dajeeg ay dagam hmm. ci fi muy toog ak buur bi day doon ko ràññeeku ndax koddaayam li moom rek lay doon koddaayam fi muy toog moom rek moo fiy toog suba day neex a mi ci biir dag yooyu ak biir ndaw yooyu weer bi ràññeeku gim ràññeeku ci biir bi diwi neex a xam mi loolu rek nga ko mën a misaale moo wal badru weer wi si ufuqi sama ci goxi asamaan kaa na daan daanaka moom malikun buur la mhm. mina zuhri bokk ci biddiw yu de way rafet mhm. adaraari yu de way leer mhm. fii na din cim pinc watara danga gis a suraya biddiwu suraya te mooy dalañ bi xawla hoo ca kew nga weer wi wakaan na hoo te daanaka moom jamoon mbooloo la muntadin mu daaji pencu li amrin ngir mbir filafirati ci gañoom mu ne beneen boor ba da nga fa gis biddiw boobu ñu naan Surayya mm-hmm. ñu nekk ay biddiw yu dajee mm-hmm. askanaantoo lool mm-hmm. nidoo lool mu ne biddiw yu Surayya dajee giñ dajee ak seen askanaantoo gi li ko nit mën a misaale mooy waa kër gu am luñ bëgg a waxtaane ba dajee nag da ngaa gis jëmm yu askanaantoo ci bindare jëmm yu askanaantoo ci colnga jëmm yu askanaantoo ci aada askanaantoo ci lépp rek watara danga gis a suraya biddiwu suraya xawlahu mm-hmm. ci kew nga weer wi beneen boor ba yaa ngay gis kawkab suraya mm-hmm. mooy dalañ bi mm-hmm. wa ka annaha te daanaka moom jamoon mbooloo la muntadin mu daaji pencu li am ren mbir financirati ci gañoom muy ni doog ak ak waa kët ay bokk yu dajee pour am lu ñuy waxtaanee wakaana mal jawsa daanaka biddiwu jawsa inqadun caqala fusilat boobu diggaleef na min hu ci moom faraidu lulu in ay peri lulu bi sumurudin ci sumurud nga seet kawaakibul jawsa ay biddiw la yoo xam ne day àndarak nii gis nga ko mu ne boo ko seetloo dafay mel ni caqab lulu buñ defal diggalee sumurud ndax boo xoolee biddiw yi niñ àndee weex mu mel comme caq diggante biddiw bu ne ak morom ma na nga caa gisee bulaab asamaan si moo tax dafa mel ni caq luuluu la ndax biddiw bu ne comme luuluu la waaye diggale bi mel ni sumurut la diggante biddiw bu ne ak morom yaa ngi gis biddiw bulaab asamaan si nga gis ay càppar yu weex te ay bula bula diggale leen wa kaannamal jawsa daanaka biddiwu jawsa xeqadun caq la fusilat boobu bi gënees na. Mhm. min hu ci moom faraidu luulu in ay peri luulu. Mhm. bi zumurudin ci zumurud. Mhm. nii laa fanaanee xataa badaa ba feeñ. saxru sabahi reewu waayu suba. maag moom bañ naan bët a ngi huy huy. ka annahu waxtul masi bi raxas bi jaww la. bi banee xaw din ci njañal jongama. di in lu daa ji tasaaroo mm-hmm. mu ne bi bëti tàmbalee set boo xoolee leer ak suba gi mm-hmm. ni muy jamee ndànk ci biir lëndëm ak guddi gi mm-hmm. nekk ay weex-weex yu ndaw rek ci biir ñuul ñuul bu yaatoo yaatu lu ko nit mën a misaalee mooy jong ma jooju defar kawaram kawar gi ñuul torop mm-hmm. ba daanu ca gannaaw mm-hmm. am nag benn benn béjjaaw bu ko rax mm-hmm. xam nga day nekk ay weex weex yu tuuti rek ci biir ñuul ñuul bu yaatu leer mu suba gi bi muy tàmbalee jam ci biir lan dama guddi gi noonu rek la ko doon mën a misaale da xatta ba daa ba feeñ taxaru sabaaxi reew waaye suba ka annahu daanaka moom waxtul musibi rax ak béjjaaw la du pana xaw din ci njañal jongama mun tadiin lu daa ji tëb alhaji Sureej an indiyin tabassama sa'isan bi arakatin an misli saafil xibridi aw saxru sinjiin wala reew waay nit ku ñuul tabassama ko muñ na mu am misli saafil xibridi ci kem wurus wu saifan ngërma muraaji socco hmm. bi arakatin bantab arak hmm. wala buñ seetee guddi gi buñ jeexee hmm. leer gi di jëm si lu ko nit mën a mooy nit ku ñuul xam ne lépp dafa ñuul der beeg kawar gi mu daal di socc ba ñuy set nag mu muuñ nag nga di gis weexaayu Hmm. ci biir jëmm ji ñuul jooju day nekk benn weex bu tuuti rek hmm. ci ñuul ñuul bu yaatu hmm. leeral suba ji bi muy jam ci lëndëm ak guddi gi nen mën na ko misaale lool aw saxaru seen jiyin wala reewu waaye nit ku ñuul tabassama kom muñ na mu sa isan mbir moom mu daa ji soccoo bi arakatin bantab arak fekk socc na ba ba ñuy set mu muñ na am min lisaasil xibridi ci kam bañ ci bañ ci kam ba ci bañ rek kam warul wu sàll. li hmm. tegoon. wal qawmu sakra bil kara fa ka annahum. Hmm. milan ala al akwari. Hmm. sar'a sarqati. li tegoon. yatayammanuna min as-sabahi bi aghrubin. buqan wa sa'd al-ghurbi. aghrabu musadi. wal qawmu nit ñi hmm. sakara way mandi lañ hmm. min kara ci gëm yàlla hmm. mu ne xam ne nit ñi ku ci gis dafay jaayo comme ku mandi ndax gëmmentu parce que annahum daanaka ñoom miilan mbir muñ da way jeng alal agwaar ci tegi saraafa miilan mbir muñ da way jeng alal agwaar ci kaw tegi sarxa sarxadin ni ñu nërmali sàngara lañ mu ne boo leen gisee hmm. ni ñoo jéngaloo ci kaw teg yi hmm. dañoo mel ni ku commande sàngara hmm. moom daanaka ñoom mii lan mbir muñ daway jéng xaal ak waari ci teg yi sarxa sarxadin ni ñu nërmali sàngara lañ fekk naanuñ dara bay mandi waaye gëmmentu moo leen ngëp mm-hmm. ñu de jaayu yete mm-hmm. yemma noona danañu barkeloo mm-hmm. mina sabahi ci suba bi axrubin ci baaxaañ bu xayen yu daway fiti pante wasaadul xurbi te texeeg ay baaxaañ axrubu musanin mooy gën ci ay tumaranke aji texeel mu ne biñ doxee ba guddi gi di waaje jeex leer ak suba gi di jëm mm. ñu jàpp ne bu bës setee ñoom ñëpp dañ dal mm. ñëpp dañoo kontaan mm. naan ndokk léegi ñu noppalu léegi ñu noppalu mm-hmm. subaa leer ak suba gi bi muy jëm jaxasoog lëndama guddi gi ci jaww ji boo xoolee asamaan lim la nitu mooy baaxaañ bu piti pante mm-hmm. kon ñoom nit ñu kontaan giñ kontaan ci leer ak suba gi jëm ah, jaxasoog lëndama guddi gi ndax jàpp ne léegi tey ñu dalale dañoo mel ni ku jis baaxaañ bu petit panté mm. daje kontaan mm-hmm. te nag baaxaañ bu petit panté mm. arab da ko daan gaafal mm. ndax gis ne ci gent yi lay dal ba boo amee soppe mu dem bàyyi la nga naan baaxaañ bu petit panté moo ko yóbbu mm-hmm. di soo taxaan alladina firaatahum atawaqaw wa jara bi baynihim il xurabul abqaw mm-hmm. kon daal coono léeg mu dem bay bëgg yóbbu nit mm. ci lu bokkut ak xaadam mm-hmm. àgg nañ foofu nag ci coono dox gerte yëpp ma ne woon danañu barkeloo mi ne sabaaxi ci suba mm-hmm. bi axrubin ci baaxaañ bokkaan yu doy pitipante mm-hmm. wasaadul xur bi texeeg ay baaxaañ axrubu musedin mooy gënte tumaranke aji texeel lu ci tegu wala yeesu min bis sura mahro ketun تسكو دراها كل جبس حلفدي والعيس جلم بي من دأب السرى ngir tëppoo rañaan mahroosatun yu ñu jot seeni saddi te haarig lañ de dëkk biñ leen dëkk war di leen demloo guddi gu jot wuñ tax na seeni joggare ngi mit tas dana tawat duraaha seeni gannaaw kulla jibsin bépp aji diis xel fi din ku daaji bon ci jikko mm-hmm. su ko defee wu jagat yi wiñ leen di war mm-hmm. dafa yokk seen coono mm-hmm. gis nga yow boo xeenoo te xen bi jagut ni bay gaaw a gaaw a làggale su fekkee da war dara te war bi jagut noonu nga koy gaaw a gaaw a làggale léegi yow su fekkee ne da ngaa waroon war bu jag dox a dox ba toqi te man la wàcci da ngay dindi sa warin wu jagadi woowa toogee nu xam ne du doon warin wu jag ndax noppalu ci mi nga toqee mm-hmm. loolu nag yokkal coono li nga war la mm-hmm. yow yow moo la yanu de dem ak yow son nga yëg ne sonn nga mm-hmm. ah nga de lu ko yokk coono dafa mel ni rek kon yërëmatoo ko waaye tas ko dana tawat duraaha seeni gannaaw ku la jib sin bépp aji diis xel fi din ku daa aji bon ci jikko lu في مهمه يسدي البواسل باهيا ويروح إحسانا فؤاد الأربد baax na foofu mu ngi melal tukki mi ca guddi ga melal tukki mi ca ña war melal tukki mi ca gëlëm ya melal tukki mi ci àll yiñ jaar nag mu ne fii mahmahin ci manding ci àll boo xam ne yus di dana mu jàqaloo albawasila ay madd mooy ay kuyi gëlëm baax yan mbir moom mu dee ndeen la muy roxo te dana mu tiital xeesa nan ci gol wala mbir moom muy gol fu aadal arbari xolab gaynde mu ñu jaar ci àll yoo xam ne la ca de ndend fittu ko jaaxal na gëlëm la ca de gajji gaynde ñeme huja yi war de dox yi daan war de dox gëlëm moo ci gënoon ñeme àll ndax gaaw na tànk mën na yàgg ci dox Hmm. mën na yàgg ci ñàkk a lekk. Hmm. mën na yàgg ci ñàkk a naan. Hmm. te itam baaxoo wu déggalam. kooku nag ndend gu mu wekk. beneen waruwaay taxul ñuy wax. ndend gu koy lott lool beneen waruwaay taxul ñuy wax. yow xam nga ne gaynde rabu àll la. te xajut ci àll bu tuuti. kon àll bu mu ñemewut. xàlle ga weesu kon daal moom bala xaal na ci yaatu ndend yi nga xam ne ñoom ci ci seen tukki bi. ak ñàng ak gàcce yi nga xam ne fitt nañ ko ci seen tukki yi. maanaam fii ma mahin ci xàll. moo xam ne si dana mu jàqaloo albawaasila ay madd mooy ay kuy gëlëm. ndax yéen ci ndend mbir moom mu dee ndend. wéeroo dana mu tiital. insaanan ci gol. foo aadal arbadi xolam gaynde. fi janabaatihi. hatta yahina sadan walam yatawarradi yataxayyaru dana gëlëm al kudri yu tipritu may ko ju kudru fii janabatihi ci wàllu xur woowu ci wàllu xàll boobu wàlli xàll boobu xata yahina ba mu dee fadan ngir mar walam yatawarrat te dumu root nga tiprit mooy xataa dafa am bu weex ñu naan jooni am boo xam ne dafay raay tupp tupp ñu naan mm-hmm. gaaw nag nekk madrabul masali ci naaw bit mm-hmm. bu gàtt ñu naaw ci lu sori dañ koo man mm-hmm. te itam dañoo xam yoon lool itam nag seen xam yoon àgg na ci bu ñuy dem ci barab euh, fiñ teg seen mbagg mi bi dem ci jaww ji buñ dëppee war a dellu mën nañ ko fa tegaat ba àgg fañ ba woon dara ci kàttanu yàlla dégg nga fi ñuy gën di defee naaw yu gaaw yooyu nag mooy buñ toogee guddi sedd ñëw mu ne yim jaar nag su fekkoon ci prip moo ko war romb doog a àgg fa mooy naanee wala dafay dee ci xàll bi waaye du ko tax a naan ya dana gëlëm al kudri yu pripam kudri yi fii ci wàlli xàll boobu xata yaxiina ba dee sadan ci mar ngir mar walam yatawarrat te du moroot lu ci tegu ka annahu bahrun alawnaahu wa ma xiitaanuhu xayra daba wal judjudi bi safini xuusin kal xanaaya dummarin nujubin bi asriatil hawaadi tahtadi yahtaajuha riixu sababati la saba waxinaa u kulli musawaqin mutagarridi mm. yasudo fa mm. yudukiru mm. kulla aadin salifin wa yusiru kulla hawan mahilin muhmadin naa du loolu la xal yi nga xam jaar na ci ni ñuy yaatoo te nidoo xam ne da ngay taxaw de xool ba sa bët raw mel ni mel ni mbir rek ngay gis ndax li nga gis yëpp a nidoo mu ne dafa mel ni géej géej gi boo taxawee da ngay xool ba sa bët raw te li nga gis mel ni mel ni mbir rek ngay gis ndax li nga gis yëpp a nidoo mu ne dafa mel ni géej géej gi boo taxawee da ngay xool rek ba sa bët raw te li nga gis yëpp ay moo tax dugg giñ dugg ci bi dafa mel ni ak dugg ci géej la moo tax ne fa ka àll ko hmm. bi hmm. baxrun géej la hmm. alaw naa ko góog kowe nañu ko dafa mel ni géej bu xam ne kowe nañ ko bi sa siini xoosin ci gaal yaa ñoom gëlëm yu de way xóoti bët la kal xanaa yaa yu mel ne ay xala zumarin yu de way hoos mm. mm. nujubin yu de way tedd mm. tahtadi yey danañu gindeekoo bi asriatil hawadi ci maaw yaa ñoom seeni doqala mu ne bi ñuy jaar ci àll bi dafa mel ni géej lañ dugg moo tax jëlee bi ñu war dafa mel ni ñooy gaal yi ñuy gàllal jàllale ci eh, géej googu su ko defee gëléem yi mm. bu ñuy dox dañoo yë dañoo yëkkati seen i doq mm. doq yooyu dafa mel ne ay suron mm. suron wala asrian jamo siran la mooy affaire boobu nga xam ne suñ bëggee gaal gi jóg gaal gi dem dañ ko yëkkati maaw dégg mu ne dafa mel ni géej géej la buñ dugg mm. mel ni gëlëm yi ñu war mm. ñuy gëlëm yi ñu doxee bañ bàcci mm. ñoo de gaal yi ñuy jàllale mm-hmm. gëlëm yi dokk yooyu ñuy yëkkati bu ñuy dem mm-hmm. mel ni maaw yi ma ñooy seeni maaw wama hitaanoo déet jëni géej googu nag xeyrat daba lu mooy dafa cadi wal judjudi ak njéréer yi mm-hmm. su ko defee géej dafa am jën yu ci dëkk soo ko sooboo ngay dajeeg ñoom di toppanteeg ñoom hmm. ak di leen romb hmm. mu ne xàll bi it biñ cee dox ay soccata ki njéeréer rek la daje hmm. ñoom rek la ñuy romb dafa mel ni géej la soccata ak njéeréer yooyu ñoo di ñoo di jël yi te ka annahu daanaka moom baxrun géej la alaw naahu góog kowe nañu ko wama xitaanuhu det ay jënam xayra daba ndara de soccata yi wal jujjudi ak njéeréer yi kowee ko nag bi safini xóotin ci gaal yaa gëlëm yi da koy xóoti bët la kalxanaa yaa yu mel ni ay xala dumarin gëlëm yu da koy xool nujubin gëlëm yu da koy tedd te te di yooyu danañu gindee ko bi adinaatil hawa di ci maaw yaa ñoom seeni doxla su ko defee gaal boo ko tegee ci ndox bay dem ak moom su àndeeg ngelaw li hmm. dem bi day neex lool hmm. su fekkee ne ngelaw li dafa am doole nag wala boobu mu contre gaal gi hmm. dafay jafeel dem bi ñoom nag dem bu neex la ñuy dem ana lu war a seen dem bi neex mooy nimse gëñ nimse barab yéñ jëm tax ñuy dàq gëlëm yi gëlëm yi sawa sorop ak àll bi itam ñiy dégg wéyi pittax yi te gëlëm bëgg baat bu neex loolu di sawar loo gëlëm yi moo tax ne yaxtaajuha dana sawarloo gaal yooyu gëlëm yooyu dana leen doxloo dox bu neex riixu sababati galawu cofeel a nimse giñ nimse fañ jëm ak kontaan giñ kontaan jawwu ji neex moo waral gëlëm yi dox dox bu gaaw la saba waaye du galawu saba waxinaaw kulli mutawaqin ak wëy bépp pittax mu ñu ndombool hmm. mu taxaridin bu daa ji wëy hmm. ak wëyi pittax yi ñooy dégg ci àll bi hmm. mu neex torop ci déggab gëlëm yi te gëlëm dafa bëgg baat bu neex boo ko waree muy dégg baat bu neex diir bu gàtt gàtt mën na la ci yóbbu fu sori ci dox bu neex moo tax ñu koy war ñaare dañ koy wéyal di ko bakk mooy na xàll bi wayu pittax yi mooy sawarloo gëlëm yi mu jàddag yow ci wayu pittax yooyu mu ne yes doo dana jooru moom pittax mi fa yudukiru mu fàttali kulla ahdin bépp jamono salisin bu daa ji jiitu mu ne pittax mi saa su joroo am lu ma fàttalil ci démb mu ne saa su joroo dafa am lu ma fàttalil ci démb ba tax mën naa dégg baat yu bëri sax waaye baatam moom pittax mi ni muy jeexitalee ci man moom rekk la wayu kiru siiru muy je muy muy muy yëngat kulla hawan gépp cofeel maxi lin gudaaji muhammadin gare guñu fay mm-hmm. fàttali gi may fàttali mm-hmm. yu wéyoon mm-hmm. danay tax lu ma demoon ba mel ni sax xam naa ca dal su ma déggee wayu pittax mi rek damay gën a furle aat loolu day am day am mbir yoo xam ne eh, dafay faral di am lum lay fàttalin tax muy am lu muy jeexitalee ci yow nu xam ne yeneen yam dendat duñ ko dee jeexitalee ci yow tey su fekkee yow da nga jaar ci ndaw ak diib bu baax a baax a baax baax mu am yoo daan jonjor biir bu wéyee rek dana ci am loo bu baax mu see rek am lu sa xel daj ni ki tey boo yàggee ci déglu rajo dana am émission bu xam ne buñ ko tegee rek mu am fu sa xel daj foo xam ne mosoon nga déglu ko dégloo te demewoon na nangam demewoon na nangam wala mu xam kum la fàttalil koo hmm. xam ne mosoon nga de ko bokk moom di ko déglu te demee woon na nangam demee woon na nangam hmm. su ko defee fàttali googa hmm. dafay tax émission yi nu ñuy bëri bëri itam moom li muy liggéey ci sa ci sa xol moom rek moo koy man wala boog yow tey jii nga yàgg ci dee liggéey xam-xam bëri téere yoo xam ne yaa ngi jonjoog ñam danay am digg yoo xam ne boo koy jàng baax si ji dafay am lum lay fàttalil wala mu am kum lay fàttalil ba nga xam ne na muy jeexitalee ci yow yeneen barab ya mën na ko bañ a jeexitalee ci yow mu ne noonu nag la sabab si tax gi mel ci moom dafa am yum koy fàttalil mooy tax ni mu koy def leneen du ko ko def yes doo dana mu jooru fa yudkiru mu fàttali mm-hmm. kulla haadin bépp jamono mm-hmm. saalisin bu daaji wey mm-hmm. wa yusiru muy yëngat kulla hawan gépp cofeel mahilin gu daaji hatu muhammadin gëre gu ñu fay fa baakiyatin sajadni mawhinan nagamatuhu fawqa alqadibil amladi baatat tutarixuni albukaa ka annama قدر الذي بجوانحي من موجدي فبكيت غير بكائها إذا لم ترق دمعا ونحري بالمدامع قد ندي وبكت بكت الهديلة على تقدم عهده أفلا أحن إلى حديث المهدي li tegu wa bakkat wa bakkat wa farxa hunaka wa qad ada anni firaqi kulla nafsin qardadi doon wax wuy pittax yi mu rubba bakiyatin bari na pittax mu daaji jooy mawhinan ab diib fawqal qadibi ci yarab garab yarab banqaas alhamdulilah buraaje qawu. Hmm. sajad ni jàqaloona ma. Hmm. naxamaatuha ay wéyam. Hmm. mooy ne may dox. ba jot yar bu naata naat ba toll ci yar bu naata naat. am pitax mu ca nekk desab. sab yooyu yëngat sama xol. ma toog de ko déglu. ba ma mën a ñàkk a jooy. su ma tàmbalee jooy muy ma déglu. su may noppi rek mu delluwaat ca sabam nga. mayit ma taxaw di ko déglu mel ni ñun ñaar daal dañuy def mu taaraxa bil bu kaa waaw wala rubba bakiyatin bari na pitax mu daaji jooy mawhinan ab diit fawqal qadibi ci kaw bant al am la di bu daaje xawu sajat ni jàqaloona ma naxamatuha ay wëyam baatat fanaan tu taarixu ni de sànni hanteeg man albukaa jooy ka annama tadri daanaka dana mu xam di li nga xam ne bi jawaanihi nekk na ci samay wàll min mawjidin ci njàqare mm-hmm. mu nekk pitax moo xam ne dafa fanaana xaw hanteeg man ay jooy mel ni dafa yëg li may yëg mm-hmm. bu commencé sab daal am lu sama kar daj du ma mën a ti lu may déglu ka hmm. su ma demee ba du ma ko xattanati du ma mën a ñàkk a jooy hmm. su ma ne jërew muy ma déglu hmm. su may noppi mu dellu xaat ca mel ni maag moom dañuy eh, dañoo eh, dañoo defante mu taaraxa jooy al mu taaraxa mooy ni nga gis gàmmokat yi de def nga xam ne dañoo def ni ñu ñaare xaaj bu kii de wax ñenn ñi de ko déglu bu waxee ba daaneel ñële jël de wax moom it muy dégloo loolu mooy mutaaraxa dafa mel ni loolu lay def ak man dañ di defee ci jooy nag ni man li may yëg ci tat ak cofeel ko sama gannaaw moom mu ngi yëg dafa mel ni loolu la ka annahum wajadoo min halladi wajadoo yubdoona linnaasi ma taxfa damairuhum ka annahum wajadoo min halladi wajadoo kalaaw li sa xel mi nëbboon moom laa dema dema dem ba nga moom ba day mel ni yow li ngay yëg moom moom lay yëg ka annama tadri daanaka dana mu xam alladi li nga xam ne bi jawaanixi nekk na ci samay wàll min mawjidin ci njàqare yóbbu doona linnaasi ma tax fa dama iruhum ka annahum wajadu minha alladi wajadu bakaytu jooy naa xayra bukaayiha jooy yu bokkul ak jooyam yi maag moom nag dajee nañ ci baatalinu jooy waaye nag xuute nañ ci wàllu maanaa xuute nañ itam ci sabab suma jooy yi du kom yoosam gis ngir lam tureex tuurut dam han rongoñ moom li muy sab ànd ak sotti benn rongañ wana xarit sama dënn man xat na di tooy na mil ma daame ay ci rongañ yi sama sama dënn ngi tooy xet suba dajee ka ci baatal su nga foog ne benn lañ déedéet dajee ka ci baatal mu tax nga tëkkale ñu kay te jooy naa xayra bu kayi haa jooy yu bokkul ak jooyam yi gis ngeen lam turi turul moom damaan rongañ wa naxari te sama dënn man xat na di lay na mm-hmm. bil ci rongañ yi mm-hmm. tanasaba mm-hmm. fil absaari zahiruhu askanantoo gi ni ak ci zahir bul tànga foog ne benn la wala taqul bi qiyaasin xayri mustaridi noonu soo ko nattee mbir yi da nga juum lool fa mutanafi la tidaada biha ni doo ci mazhar teewul xaajoo ci maana shattaana ma bayna muhtazin wa murtaidi shattaana ma bayna muhtazin wa murtaidi gis nga ki bég de jaayu ak ki tawat de lox cëri yëngatu ca kay jaayu mooy yëngatu ca sa na jaayu mbégte mook loxo coon loxo feebar est-ce que benn lañ du benn moo tax ni doo gis ci mataar taxul ñu bokk ci maana man ak moom daje nañ ci baatal waaye taxul ni bokk de gis ngeen mu ne bokk na ci lu lay xamal xaajaloo gi moom sottiwul benn man sama dana ngi tooy bakat jooy na mu alhadiila hadiil ala taqaatumi hadiyi ànd ak yàgg ak jamono afala ahinnu kon man duma binni ila hadisil mahadi jëm ci aji heete ci dëj mhm. mu li muy jawe lu yàgg la mhm. lu xam ne luñ ko muñee lu bari mhm. jaar na fi lu xam ne yàgg na luñ ko fàtte te man li may jooy bees la ndax diir lay jooy mu nekk cuuj bu xam ne kenn xamul kañ la woon daa bokk ci seen xisas xuraafiye yi xuraafiye yi ñu ne benn cuuj la woon ca boo yàgg yàgg ab bu dal de ko jàppee ci ndey ji hmm. dal de ko rey wala joxu ko ndox joxu ko dara sàgganee ko bu hmm. ko sàgganee ba mu dee wala da ko rey hmm. yaay ji da ko jooy jooy googa moom la pittax yi jël muy seen sabin pittax moo gis rek loolu lay buy sab xadil boobu lay jooy loolu nag kenn xamut kañ la woon mu ne li mooy jooy loo yàgg la lu xam ne luñ ko muñee lu bëri jaar na fi ay cuuj yu bari am na fi mm-hmm. lu ne lu mu xoyofee ndax na am na mm-hmm. man nag li ma jooy yàggagut mm-hmm. gisaguma lu ma ko muñee te àggagut ci war koo fàtte bakkat jooy na alhadila hadil ala taqaddumi ha di ànd ak yàgg ak jamonoom afala hinnu kon man duma binni ila hadisil mahadi jëm ci aji heesu ci géej aa kañ di ba bakkat jooy na safar xaaxaat te ñaari ñaari cuujam konaake ñu nga foofale mu ne mu ngay jooy waaye mu ngi dend ak ñaari doom yi ñu ñaari dogi ñaari soppeem yi gën a sës ci xolam waxadaa daa diggale na an nii ci man firaaxi samay cuuj ku la nasrin bépp dongo xardadin bu daa ji yëkkateeku te man nag samay doom sori nañ ma te ñooy samay dogi tiras ay xur yu bari ak dongo yu bari ñoo jaar sama diggante ñoom su ne su mënoon naa dellu ci ñoom ba tey fanaan àll ba tey xeeg dongo ba tey wàcc ba tey ñoom itam suñ bëggoon lool fekk si ma si ma ne ko def kon bokkuñ sabab ñu jàng lool waxtaan Ababacar jooy na te farxaaxaa te ñaari cuujam xunaaka ñu nga foofale waxanaa daa diggale anni ci man xiraaxi samay cuuj kulla nasrin bépp dongo xarda din buraaj yëkkateku ana maarumtum minhum rihlatan illa hajaw an la talaqiya baada sakal mashadi saala awiluhumu wanahu nawhatan salakat fuada mukasihin fi mifadi wasaqaw taraqiyahum faqalu la tarim aw la fala tabaat wala tatabaadi abki alayhim baadahum asafan wahum yabkuna baadi kasakal alfuqati ñu jàngaloon mu ne maarum te mosumay sàkk minhum ci ñoom rexlatan laxas illaa xajaw ndare jot nañ ne an naka luy mbir laata laaqiya déet ak daje baada zakal masadi ca gannaaw boobale teew wari saa su ma mosa wax ne danaa génn wuti xam-xam génn wuti njëriñ dañ naan loolu ba mu daan jant def mooy ba mbir yee baax waaye léegi jamono bi dafa yàqu boo demee doo del si jëf nga diw sàngam demoon na fi dikkut diw sàngam demoon na fi dikkut diw sàngam demoon na fi dikkut hmm. yooyu dañoo tëri hmm. danga ko fommee te xëy na ñoom loolu lañ fas hmm. fekk dee moom jotewul ak dem jotewul ak toog ah nit fu dee jote bu ko mën a fekk rek dafay dee wala ne maarum tuma su may sakku minum ci ñoom rexlatan laxas mosuma jot ne damay dem hmm. illaa xajaw ndare boobu jortu nañ ne hmm. an naka luy mbir la talaqiya dëkk ak daje hmm. baada zakal masadi ca gannaaw boobu la teewaay faala dal di kowe awiluhum seen kaw wannaa xoo ñi de jënt naw xatan de jënt salakat bub soob namu fu adamu kasihin xolab aji nëbbu nooneel fii hmm. mis adin ci furna mooy barabu taal safara hmm. bi ma dogoo nag bañ xam ne foofu ma mënatul nekk nag hmm. te ñoom lii seen pas mooy àll bi ku ci lii seen pas pas mooy bi ku ci dem da ngay dee ñii ma yooxu nag comme ku ma ñàkk dama jooy comme ku am dëj jooy yoo xam ne bañ yi sax mujj nañ yërëm leen taala kawe naa wiloom seen xawu muy yóoxu nañ ma ca kaw hmm. wannaa xoo ñu dëjjantu naw xatan agam dëjjantu hmm. ñu def ma ni yaaxa ni ku may dëj hmm. salakat bu sóob na fu aadamu kasiin xolab aji nëbb noonel fi min adin ci furna muy loo xam ne yaramu bañ sax daw na ci wasaqaw ñu nandal mm-hmm. taraasiyahum seeni dendi baat mm-hmm. dañoo jooy ba seeni doq tooy mm-hmm. waxuma kay seeni la waaye seeni doq tooy waqaaloo ñu naan laa tërim bul deñ ñu naan waa ji toogal ñu naan bul dem fala fàttali la jëriir waxoon abana fala rimta min indina yow suñu bàyyi bu fi jógee fa innaka xayrin ida lam tarim gis nga bu baax a baax waaye nag lu tax jegaante gi neex rek moo ko tax de sori gis nga bu baax a baax loolu rek moo ko tax de sori dafa amoon akam commerçant mu nekkoon Ndiang la sant dama fàtte tur wi dafa am benn bis mu jógee këram dëggwante ay soxnaam na ko dañ la soxla fekk dem na ba wàcc ba wàcc da jël kare mu dellu yéegaat toog na leen ca sàll ne leen ñu ne ko daal li ñu métti mooy doo ñu bind gis daanaka. bind gis daanaka. kër gi dafa nekk léeg-léeg. Hmm. mooy leen ci sarta bu kenn wax andi. Hmm. ah hmm. su mbir yi mën a dox te du ngeen wax andi d'accord. su fekkee man leen a ñàkk man ñàkk a indi nag. Hmm. man ci dox bi jëlaat ci génn bi jëlaat ma ne ma leen jox. waaw hmm. ah. loolu moo tax koo xam ne xaatifaam lay waxee mooy yëg a bopp waaye waxee wut xalaatam. Hmm. waru la yàqal yow li ñor ci sa xalaat te mu wër la ne am njëriñ. loolu la soxla rek. waaw ah. li ëpp ci xale yi li ëpp ci jigéen ñi. seeni xaatifa la ñuy waxee rek. waaye du ñuy waxee seen xalaat yu am njëriñ ñoom nam nam doon yëg ci ñoom rek. waaye pour la xel ma liggéeyee nii la war a do suba nag yow yaa war a xam ki hmm. nga war a topp koom hmm. ak ki war a topp sa koom hmm. yaa war a xam mu ne wasaqaw ñu naan daal taraaqi yowum seen i dindi baat dañoo jooy ba seen i doq tooy tooy ñu naan laa tërim bul da falaat tabax yàlla balaa ko. demal te dikk ak jàmm boobu. ñu ngi koy ñaan waaye daanaka gëmuñu ko. defooguñu ko. wala te te bul sori ba sori. bu fekkee balaa aajo di faju mu sori. kon bu soriwul génn gu fajut aajo lay do. ko soxla lu amul njëriñ lay do. loolu itam ku naa def. ne ma daal di dem kii maa um mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ah, ngi jooy alayhim ci ñoom baadawum ci seen gannaaw dafa fan ngir njàqare léegi na mën naa leen nimse naa leen mënu ma leen gis mënu ma am ci ñoom xam-xam ah te nit rek laa leen bu diis la ci nit may jooy comme ku yenu lu diis moom ñoom ñëpp kon ñu ngi baadi ci sama gannaaw ka sakala demel ni way ñàkk doom yi yi alfuqat ñu de way ñàkk ñoom nag ñu ngi maa jooy mm. ni ñoo jooyee koo mm. ah, ko gis ñoom daal jooy ya mooy jooy mm. wane ne ko daal foo faree woon mm-hmm. bu fi jógee ñëpp war de jooy mm-hmm. te ko gisee xaalam li muy wax mooy inna baqa addamae fil amaqi mm-hmm. min baadihi min sayyi l axlaqi waaw ah, inna baqa addamae fil amaqi min baadi min sayyi'il axlaaqi waaw mu ne bët de deseeti rongañ ci gannaaw kii man xamee ma ko gore hadi waaw inna baqa addamay fil amaqi min baadihi min sayyi'il axlaaqi ko gis ci ñoom rek dafa mel ni loolu la xaalam di wax ndax ñoom ñëpp jàpp ne dee naa ndax foog guñ foog ne ku dem ci àll ba dee loolu taxul nga dee ko dem ca àll ba hmm. moom loolu taxu ko dee hmm. kon ñu jàng loolu law kaana abdullahi hmm. yasmau nawxati alqat asaaha rixlati wa tazawudi dafay def li ñuy wax talmeex mooy dangay wax ba ci kanam nga junj benn xisa te doo ci jaar wala junj aw wëy te doo jar wala junj masal te doo ci jaar loolu moo tudd talmeex moom lay jëfandikoo fii hmm. waaye ci lay defee taxallu fit nag hmm. mooy rocceeku jëm ci li ko tax di way xasida bi hmm. te mooy tagg sëriñam ba sayid ibnu nasirin mu law kaana bu nekkoon abdullahi abdullahi ibnu tahirin yasmao di dégg naw xati sama dee jëntu alxat kon sànni rexlati sama laxas xasaaxa xetam wa tasawudi ak sama yóbbulu mu ne Abdullahi ibnu Tahirin ma déggoon Awfu su déggoon sama jooy yi kon dootuma dem fenn dana ma defal pexe ba dootuma demati fenn Abdullahi ibnu Tahir kenn la ci sangi arab yi da daan génn di xare ji di indi ay màng yu bari di ko jox ni ñi mu génn di xare ji nag àndeeg sans yaram bi ñuy wax Awfu hmm. ñu dem ba ca kanam ñi dégg am ci tax muy sab hmm. Abdullahi ibnu Tahir dal di wéy ñetti wéy wax ne ala ya xamaamal ayki hmm. il fuka xaabirun hmm. yow pitta mi nekk ci sutu bi hmm. sutub bi yaa ngi dend ak sa soppe mu ngi waxus nu kama yaa doon sa place bi neex na banqaas baa ngi yaanoog yow to fii ma tanooxu dana joyi lum doote dana joyi lum doote yow tumaranke hoo wéetoo joy lum doyati dal na ko ala ya hamamal ayki ilfuka hadirun wa husnuka mayyadun safima tanohu afiq la tanoh min gayri shay'in fa innani bakaytu zamanan wal fuadu sahihu walu an wa shattat gurbatu dari zainabin fa ana abki wal fuadu jarihu mu ne ko bul jooy te amoo loo jooy man mi de tolloog yow de ku gëj a gëj sama soppe la Zeynab te ku dëgër laa gëj naa ko lu yàgg jooyu waaye gëj gi yàgg ba mën a tuma ñàkk a jooy may jooy ba di di ko trongoñ lu yàgg yàgg xol bi deful góom waaye na ba àgg na ci xol bi di def góom man maa tolloog yow yow wéetuloo tumaranke woo te jooy bul jooy lu ñorul waaw ah. xam nga wax dëgg yàlla gis ku ñu rendi nga di jooy rodd ci peggam xam nga jaaduwut xam nga jaaduwut waaw te loolu gis ku ñuy rendi nga di ko jooyale rodd biñ lay rodd xam nga jaaduwut mu ne ko loolu nga def xam nga loolu xam nga loolu la def mu ne ko li nga def jaaduwul xaaral ba am loo jooy nag dëgg dëgg bi mu waxee xaw fu bi mu waxee loolu ko xaw fu est ce nga maa indil xasida boo xam ne ci baxru bi lay doo ci rëwi bi te itam ci fikra bi maana mi hmm. aw fu na ku yomb ma lool dal hmm. di jël rek continué kulli aamin xurbatan hmm. wa taruhu xat mu ne danga tumaranke xat mu ne ama lin na waa min ruqiyatin fa turihu lii du sago ndax bu du sago du soxla rek parce buy soxla war naa faju nga wala boog nga xam ne du faju nga toog hmm. waaye de dem rek du sago hmm. dañ la war a yóbbu ci buuxaaba yi ñu moccal la hmm. ama lin na waa min ruqiyatin fa turixu laqad talahal baynul faruqu rakaibi ndax loola ci tegu faal pour yennal bayna wa huwa talixu yàgg naa ci tumaranke bu tumaranke feeñ na ci suma lu ne kañ laa koy kañe nag moom ba mën a toog wa arraqani bi rayyi nawhu hamamatin fa noxtu wadu sawqil qaribi yanuhu damay dox ba àgg ci rëyu dëkk la dégg benn pitax buy di jënt buy de jëntu mënuma ñàkkaat de jëntu ndax wax dëgg yàlla soppe bi mën a guma koo fàtte ala annaha nahat walam tadri abratan wa nuxtu wa asraabu dumuhi safoo fekk maa moom buñ dajee ci baatale tam am na yu ñu xaajale ndax moom sottiwul benn rongañ man maa ngi jooy rongañ a ngi sotteeku xam nga ni doo ci baatale wutee ci maana am na وناهت وفرقاها بحيث تراهما ومن دون أفراقهما هامه فيه.